tenir à l'école du parti parce que moom comme moom lañ dénk daaray bi nga xam ne mooy daaray Cheikh Anta Diop wax nga sànq les dérives langagières a commencer par Ousmane Sonko il a essayé de nier mais moom moo la gën a xam ne tout le monde tous les observateurs sont d'accord que Ousmane songo a un langage très dur c'est son choix am na ci droit xëy na noonu moo noonu la choisir communiquer mais ñëpp d'accord nañ ne sa façon de communiquer c'est très dur il a un langage cru xawma nag ci école de parti bi dañ koo théoriser dañu théoriser ne euh, nu mu tëddi xëy na moom dana ko leeral dañu théoriser ne yow Ousmane Sonko amal un langage dure et cru xaw ma moom moo yor école du parti mën na ci tontu mais le constat est fait que Ousmane Sonko a un langage cru et souvent même qui frise l'insolence mais c'est pas grave xëy na c'est sa manière de faire et quand même ça fait tilt auprès des jeunes parce que am na ñoo xam ne sax dañ considérer noonu muy waxee sax langage boobu la jeunes yi dégg jeunes yi noonu la ñuy waxee donc pour leur parler il faut parler un langage terre à terre souvent assez cru pour que ñoom qu'ils s'y retrouvent tant mieux c'est un choix maintenant toujours ci école de parti wax nga sànq sur le réseaux sociaux mais ñoom dañu am veille informatique veille informatique xam mooy lan ay gone yoo xam ne dañuy toog fu turu Sonko génn ñu tontu. ci Facebook ko am léegi. Ah, man de xaw ma. koo fi invité moom ay militant dañ lay saaga mais du kan nga invité tey du Pastef. waaw ah, baa ñu wax ci Pastef <laughs> ba suba boo invité keneen ñu wax ci moom <laughs> tey Pastef bi toog dégg wax ni dama ne dañu am veille informatique veille informatique ay gone la yoo xam dañ fay toog. ku tudd turu Sonko fu mu génnee réactivité saaga xas et cetera loolu moom munu ko bañ c'est une réalité parce que nous tous on a vécu sax mais c'est pas grave yooyu tam ba tey seen choix la seen option la mais dama ne école du parti xëy na loolu war na koo jéem a gën a joyanti gëm gën ko euh, réorienter maintenant seeni leader ak seeni responsable yi ñu jàpp il parle de d'une centaine de personnes yoo xam ne ñu aujourd'hui en prison ou poursuivi mais ñooñu ban langage lañ tenir pour ñu poursuivre leen xam nga fekk ñu leen seen kër ñu toog di naan ataaya ñu buub leen yóbbu amul fekk ñu leen seen kër ñu toog di naan ataaya ñu yóbbu leen dañu am ay vidéo yu ñuy def mbaa ñu def de déclaration publique di wax ci loo xam ne mën nañ ko considérer comme attentatoire à la sûreté de l'État c'est pas moi qui juge ña nga xam ne ñooy saytu loolu ñoom ñooy apprécier est-ce que lii c'est attentatoire à la sûreté de l'État ou pas c'est pas Amadou Diouf mais damay constater ba tey dama ne ñooñu déclaration yañ def ba tax ñu woo leen ci kanamu justice fekk ñu leen seen kër seen suufu garab wala seen saal ñuy naan ataaya ñu buub leen yóbbu dafa am déclaration yu ñu def may ma rek ma terminer may mun a pour ne pas monopoliser la parole foofu la ñu foofu foofu lañ leen fekk am na déclaration bu ñu def ñu yób jël leen woo leen ci kanamu yoon ñii ñu poursuivre leen ñii ñu takkal leen lam ñii et cetera et cetera maintenant boo basé woo ci loolu nga ne y a un problème de démocratie mm-hmm. mais la démocratie euh, je crois que ça doit être respecté de part et d'autre mm-hmm. là où le pouvoir doit respecter les libertés des des des opposants l'opposition aussi doit être dans une position boo xam ne c'est pas pour déstabiliser l'appareil d'État parce que l'appareil d'État c'est pas le pouvoir de Macky Sall après le Macky Sall il a son régime il part avec son régime mais l'État reste. merci Amadou État boobu di rester dañ ko war préserver. non je termine ah, État boobu parce que. ah waaw bon <laughs> État boobu di État boobu yow bi ngay wax dagguma la bàyyi ma. <laughs> <laughs> il faut que l'invité da nga wax ba xaaxa ba je termine Euh, nu mu tëddi état état boobu dañ ko war a préserver de telle sorte ku mën a falu boo excès di nga fi fekk état faut pas qu'on fragilise l'état donc li may wax foofu mooy ñooñu jàppuñu leen ex nihilo c'est-à-dire que tooguñu rek jàpp leen par coobare Macky Sall dafa am lu ñu def ku def dafa am text yoo xam ne moo nekk Sénégal ne ku def lii lii moo lay dal kooku amul tur amul sant ku ko def dañu war a dal sa kaw boo bokkee APR te nga def ko te kenn jàppale aussi. Hmm. loolu du yoon. mais loolu mooy problème ah. non dafa ndànk rek may moom a ah, terminé. loolu mooy problème bi non déedéet man xaw ma luy problème bi. Assane Diouf est aujourd'hui dans les lignes eh, de la détention pour une déclaration alors que euh, un xamuñu ban déclaration la. deux xamuñu lan lañ koy toppee xam nañ ko. te am na ñu fi yow xamuloo ko ña koy enquête xam nañ ko. waaw mais waaw mais non ña koy enquête xam nañ ko. non ña koy enquête xam nañ ko faut pas se substituer non faut pas qu'on se substitue non may may mun a faut pas qu'on se substitue ñi nga xam ne seen liggéey mooy enquête mooy justice mooy def li nga xam ne mooy seen liggéey nañ leen bàyyi ñu def seen liggéey. d'accord bu ñu yegsee ci cappaandaw ga ñu mën a juger ne ñoom li ñu def jaar na yoon wala def jaarul yoon man tey bu ñu ma woowee damay wuy ji ba xam lu ñu may doyee bu ñu fa jógee nag bu ñu fa jógee bu ñu fa jógee ñu xam lañ lañ ma doon doyee man loolu laa amoon lu ma doon ramasser par rapport à tout ce qui a été depuis <laughs> si si si j'ai raté si j'ai raté le coche quel certain coche de l'histoire mon frère Amadou a raté waaw su fekkee ni dama non c'est non c'est pas personnel mon frère il a raté la grande occasion de bien m'écouter parce que il ne m'a pas bien écouté li mu wax nii yépp il le fait dans le but simplement Euh, n'est-ce pas de de dire des choses <laughs> absolument tu très subjectif pendant tout le long de plus ton... léegi ce qui s'est passé moi j'ai dit je n'ai pas dit qu'il a pas qu'il de dérive sous Senghor Senghor moo jàpp ma Dia ça a été une ah, dérive non il y a eu des dama ni Macky Sall kese moo cotisé wul ci démocratie sénégalaise Senghor cotiser na ci démocratie sénégalaise cela ne veut pas dire que deful ay dérive beaucoup de Sénégalais ont d'ailleurs su fekkente ni y a eu des morts pour l'instauration de la démocratie parce qu'il y a eu des dérives n'est-ce pas sous Senghor et sous Abdou Diouf y a eu des dérives sous Senghor ah. et sous Abdoulaye Wade y a eu mais au moins c'est des gens qui ont fait avancer la démocratie dans une certaine mesure hmm. il ne m'a pas bien écouté il faut savoir écouter mon cher balaa ngay tontu non waaw euh, non Amadou Amadou il faut savoir écouter xam nga li ngay def ni moo tax doo déglu Amadou Amadou laisse le li ngay def li ngay def nii moo tax doo ah, déglu man ah, Blondin bi ñu koy rey j'étais à l'école primaire n'est-ce ah. pas et puis c'est mon voisin à la SICAP Blondin c'est sa famille je la je la connais très bien n'est-ce pas donc pour dire simplement que Abdou Diouf Senghor Abdoulaye Wade ku ci ne dama ni am nga loo cotiser ci démocratie bi Macky Sall kese laa gisul mu cotiser ci démocratie sénégalaise te loolu moom ci tontu yi mu tontu amul benn avancée démocratique bu mu indi ne Macky sàll moom moo ko def te en tant que chroniqueur il faut savoir être objectif mon cher parce que mënuloo taxaw ne 500 euh, sénégalais patriotes yi ñu jàpp dañ leen jàpp parce que dañu def ay déclaration waaw ñiy def déclaration ci weneen wet ga ñu bàyyi leen nag. inéquité. ah. wan leen ma leen. ma wan ma kon kon xam xamoo leen. xam nga il manque d'objectivité finalement. Ah, un chroniqueur par essence. un chroniqueur n'est pas là pour. xam nga dans un débat. non il faut avoir des arguments je ne t'attaque pas. je ne t'attaque pas personnellement. Ah, Amadou Amadou Diouf sa personne pas importante. développer mais je n'attaque pas personnellement. Ah, ah, ah, dama koy jox conseil rek. pour que ëllëg dama koy conseil pour ëllëg bu toogee ci télé nit ñi naw ko. parce que boo boo nekkee non Moustapha faut pas être un directeur de conscience. moi j'ai pas besoin de directeur de conscience. Amadou s'il vous plaît Moustapha man je suis là pour faire mes analyses. donc je disais je disais que quand tu non so mënoo waxte du ma la tontu parce que mënuloo taxaw fii wax ne les 500 militants de Pastef yi ñu jàpp dañ leen a jàpp parce qu'ils ont fait des déclarations yoo xam ne c'est de nature à jeter le discrédit sur des institutions wala créer ay insécurité ba pare bàyyi ñu nekk ca wet geneen wàll nga def wax wax yu gën a grave yu xale yooyu wax mais des gens ont appelé au meurtre contre Ousmane ko ñooñu anañu des gens du pouvoir du ñu benn du ñu ñaar ils ont appelé au meurtre ñooñu anañu ñu ngi ils vaquent à leurs occupations n'est-ce pas nit def na émité comme kese simplement reetaan ñu tëj ko ci kaso bi huit mois Babacar Ndiaye mi nga xam ni mooy vice coordinateur de Pastef Mbao déclaration wu ñaata mois lañ ko toppee fi mu nekk nii bërki démb lañ ko jàpp ci kaso bi mais loolu loolu lu muy signifier loolu du dictature booy wax da ngay wax ak objectivité te nag Sénégal gi ñu nekk nii jàpp nañu ne suñu démocratie bi duñu bàyyi ku ko yàq Ousmane Sonko c'est li mu li mu fi wax yëpp de nee na il a des il a il a des il a un langage dur mais waxu fi ba léegi dérive de un langage dur quand tu es en face d'un pouvoir. si wax naa dérive. qui ah, t'accule un un pouvoir qui t'accule qui cherche à t'éliminer même physiquement loolu danga nga bëgg taxaw naan ko waaye non <laughs> nag ma baal quoi non est-ce que loolu nga war a def. il faut résister la résistance est un principe constitutionnel boo demee ci constitution bi ci préambule bi n'est-ce pas di nga fa fekk le droit à la résistance